jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare lamb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaan ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne ñu ngi fii nag ci Yoff wala Ngor. Ngor Ngor Wakaam Yoff <laughs> fi xale bi nga xamante ni mooy xeeru Ngor numéro 2. démb mu bëree combat boo xamante ne vraiment combat bu am solo la ci carrière am digganteem ak mu am ci ndam loolu moo waral tey ñu seetsi ko ngir waxtaan ak moom lu baree bari ci làmb ji. ni mu ko préparé bi mu ñëwee adversaire bi ni mu ko gisee ni mu bëree combat bi ba ni mu ci amee ndam ginnaaw loolu dañ koy bàyyi mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñu wéyal waxtaan bi mbër ndam neex na de. waaw ndam neex na yàgg nañ am ndam am nañ defet xam nañ ñaar yëpp waaw mais dañuy wax auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bañ sant yàlla julli si yonente bi sant suñu ñaari waajur di ñaan suñu waajur bu jigéen yàlla bàyyi ko fi ba mu fekkee suñu njariñ hmm. ñaan suñu waajur bu góor fi mu tëdd gënal ko fii mu jugee hmm. yàlla yërëm ko xaare ko aljana di ñaanal aussi sama frère bi nga xamante ne dafa wàññi muy Arona Samba hmm. waaw daan sonn si man waaw maa ngi koy ñaanal yal na ko yàlla xaare aljana firdawsi di nuyu waa adduna yëpp waaw di sant képp ku ma ñaanal képp ku ma jàppale di nuyu sama gaay yi toog nii aw ma seen lépp ñoom la Mm-hmm. Ah. balaa ñu dugg ci combat bi dañuy njëkkee ci sa frère boobu di Arona nga xamante ni vraiment fu ñu la gisaan dañ koy gis ci sa wet euh, ci ban moment bi combat bi quinze jours la génn àdduna wala vingt jours. waaw ay quinze jours yooyu ah. Mm-hmm. waaw parce que biñ na open press bi des na ay waaw juróom ay sept jours huit huit jours côté yooyu noonu. Mm-hmm. waaw. Euh, génn àdduna Arona ci nan nga ko yëgee ak ci lan la la fekkoon ak bi nga ko yëgee automatiquement sa xel ci lan la. waaw ko yëg boo ñu ngi def publication maa ngi def publication pour open press bi parce que dafa xëyoon liggéey parce que ñun ñaar ñoo yendu si biñ ne suba la nii comme ñoo yendu ba ngoon guddi ñu toog fii naan kafe caayen après mu dem tëdd xëy ëllëg si dem liggéey moo wax kii ñoo àndoon suma gowen bale bàcc ñoo àndoon xëy liggéey maçon yàlla def ndogalam ñu nangu ko waaw bàcc moom woo téléphone wax ma affaire bi waaw fii mën naa ne fii ak seen kër 30 laa ko def moom bi mu koy wax daf la wax dafa wàcc liggéey wala dafa gaañu rek la. waaw daf ma wax ne ma wàcc na liggéey. ma daw dem mais gëw ma ko woon. Hmm. wa dem naa ba foofu ba si ngoon gi gëw ko. Hmm. waaw parce que ma woon gëm loolu mais nag yàlla lu mu def si jàmm bi rek gën. Hmm. waaw ci moment bi nga demee làmb ja nga dugg ci si stade bi rawatina ci digg géew bi nga xam ne yéen ñaar yéen a fa daan bokk absence am ci ban moment nga sentir ni fa carrément moment bi manqué na ma. avant làmb ji. man mosuma bëree combat di dem làmb jooy mais démb damaa avant may takk sama ngémb dama taxaw jooy. wallahi ma xam ne am na lu ma manqué. waaw mais nag yàlla lu mu jël mën na ko remplacer waaw. maa koy ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana. loolu benn entre la woon ñu koy ñaanal yàlla yërëm ko te xaare ko àjjana nga ñëw ci làmb ji nga dugg si ñu gis beneen xeeru ngor numéro 2 ci état bi ci ci màgg gi. ci concentré wu ci bis bi lan moo waraloon loolu. waaw parce que làmb mën naa nekkatuma si xale quoi parce que ku ku bëre depuis 2014 ba léegi ngay bëre def 14 komba wax dëgg neex yàlla làmb nekkatoo si gan. waaye eh, te parce que dama doon ñëw ay combats di def yëfu xale ñu may daan. Eh, te ñi may daan ñëpp wax dëgg neex yàlla ëppale ñu ma cër si làmb. yàlla nag mooy maye di xañe. bu ma xañee damay nangu mais dama xam ne làmb dama si am cër. yee te cër bi ma si am dinaa ko jël incha allah te ñëw naa pour jël ko képp ku taxaw kanam xamal ne xeer ngor mu ngi ñëw pour jël sa cëram. yee. démb Kogna 2 jàkkaarloo ngeen ci avant ngeen nekk ci enceinte bi wala ci biir enceinte wala yu mel noonu wax ngeen benn yoon yéen si buntu bi lañ daje bi ñuy dugg. yéen a bokk daje ñëw fekk mu taxaw si porte bi man nag waxuma ak moom. mais nañu wax ak moom. moom muy wax ak man di di di ma sama tur sama tur yaay. mais ay détail la làmb la. loolu loolu absenté woowu la benn yoon. non lu la def mbër mbër moo xam ne ci làmb rek ngeen xamante mu tudd sa tur ba romb la tudd sa tur yaay. non loolu dara parce que boo siwee maanaam dinañ xam ba xam si yow loo xamante ne yaakaaroo woon ne mën nañ ko xam waaw parce que làmb boo demee ba am tur rek pour ñu lijjanti la day yomb. moom amaana loolu sax jafewul lu yomb la parce que ñun ngor ñëpp ñu xam suñuy waajur ñëpp leen xam yàlla moo dogal loolu mais loolu yëpp du dara làmb la woon xam nga parce que dafa am lu ñu waxante si signature bi mhm. mu ne ma damaa dem drapeau chef de l'état mhm. Iba Mar gii dama koo tëj mhm. ma ne leen yéen ma laaj leen ne leen su ma ko daanee man lan la mais loolu mu wax yëpp loolu moo am moo tax ma ne leen man su ma ko daanee moom mi dem foofu yëpp def loolu yëpp man su ma ko daanee lan la laajoon naa leen loolu waaw dama bëgg ngeen tontu ma. léegi boobu lan lañ la tontu ci moment bi ñu ko laajee ban ci lan la tontu. ngeen ne ma champion laa. Mhm. ngeen ne su ma ko daanee champion laa. Mhm. alhamdulilah. yow yëg nga ni champion. yëgaguma ko de mais yaa naa ko doon. arbitre sifflé yéen ñaar ngeen taxaw mën nga ma expliquer nan ngeen bëree yéen ñaar ba nga daan kooña. sous-estimé ma ko xeebu ma ko adversaire la kon adversaire yi ma bëreel yëpp mais ma kooña du woon su ma yoonu làmb. parce que bokkuñu. lu tax bokkoo leen ta nga jël avance. man li may peser si man hmm. mën naa wàññil Kogna vingt cinq kilo mais peser ci poids du du dara ci làmb parce que ñaari mbër bëri nañ fi kenn ki ëpp poids morom be te ki nga ëpp poids moo la daan laay gaynde bi muy bëreeg Pape Morlo moo ko fuuf te Pape Morlo jël bu yomb la ko daan. bëri doole. te doole xale. Kogna da bu ma magul maguma de magantew ñu de. Ah, kon ñaari xale ñoo moo tax ma la xale doole. moom xale la mais est-ce que am na doole ji ma bi ma sumee bi ma sumee ko damaa dox góos dox duraat ne leen doole dañ koy liggéey kenn du tëdd di nelaw di ko am yow xam nga ma ay at ci ginnaaw gis nga ma démb. xam nga ndax maa ngi liggéey wala liggéeyu ma yaram du fen yaa Kogna ko doole. maa ko doole ñaari yoon. ban moment nga jàpp Kogna sentir ne moment bi yaa ko ëpp doole. avant di siffler ba ni lamb ji jeexee yëguma Kogna dooleem gisuma ko. billaay wallaay tallaay xeebuma ko nag sampion la. mais wallaahi yëguma ci moom doole gisuma ko mënul am doole sama kanam waxoon naa la ko ci open presse bi woon naa la mënul am doole sama kanam billaay wallaahi parce que de un dama ko gën a diis deux maa ko gën a baax ay cër trois bokkuñu ni ñuy bëree ni ñuy bëree moom suma ma daanoon démb mënoon na ma daan de mais su ma daanoon ñëpp dañ naan adduna naan kii cuune la yee parce que ñëpp xam na ne lenn rek la mënoon def si combat bi mooy daw jébalu loolu kese mooy li muy def noonu cokkaas la daw ñëw songu se moment bi ngeen di bëre yow ci ban moment nga jàpp ne lii la bëgg lii la bëgg a ci yow parce que man ragaloon naa ni damay bàyyi sax nga parce que li mu li mu naroon du ma la ko wax waaye parce que gis naa ci biir bëre bi nu ngeen wuree yéen ñaar mais ci ban moment nga sentir ni Konia lii la indi lii la bëgg def. dama dox si kawam ñaari pas mu arrière teggi teggi teggi léetoo bi pour calculer ma ma teggi sama tànk ba mu calculer ba pare ma door a tegaat sama tànk ñu dox dem droite mu ne bërët ma door ko uppercut mu luppe bi mu siggee dama ko jamaat gauche bi mu yëngatuwaatee dama ko jamaat ñaari góos mu accéléré léewtoo yi ma xam ne day ñëw parce que boobu bëggatul dara si gauche yi boobu xam na ne bu taxawee yeneen ñu gën a metti mooy ñëw mu accéléré léewtoo yi ma xam ne mu ngi ñëw moo dana bërët rek ma arrière sama tànk mu rëb kat apina te daanaguma ko instant boobu bi mu ne bërët bi mu kat apina com-com baa si suuf beneen loxo baa si suuf te ñaari tànk ñu si suuf mais maanaam làmb dañ koy dañ koy liir combat bi man dama ko liir ñu jox ma ay conseil ni ma bëreel nii ma dem bëree comme niñ ma conseillé yàlla may ma ndam mm. Kogna ban erreur la def ba Xeeru Ngor daan ko ban erreur la def waaw deful erreur mën naa parce que li mu daan bëre la bëre li mu daan bëre daan moom la bëre daanu làmb nag boo daanoo da ngay dégg nekk mais nit def na erreur ba tàyyi daan ñu naan ko félicitation duñ ko wax erreur bi mu def. mais moom am na erreur bi mu def ci biir combat bi parce que man mënu ma concevoir ngay bëre ku mel ne Xeeru Ngor numéro 2 mu mu long la large la ngay bëre ak moom bëgg a gaawal combat bi est-ce du erreur est-ce que warul woon téye combat bi ba ci kanam ba mer. loolu laa man loolu laa loolu laa préparé woon de. Hmm. combat bu bu wallahi buñ bëri woon lu yàgg moom mu bàyyi. li ma entraîné entraîné wu ko li daj li ma daj sama yaram bu ko dajoon ci yaramam du bëre se sumay entraîneur dama doon dama doon dem bay xuloo ñoom di mer. sama bëñ dafa damm si contact yi sama bëñ bii. damaa contact ba sama bëñ wadda barke Cheikhou Tidiane. dama si daj ay coono yoo xamante ne gëm naa ne buñ doon bëri fii ba ginnaaw suba. lu ma bëggul mu def ko du ko def. yee parce que xam naa ne lenn rek la mën a def mooy daw ñëw. damaa ngi ko doon xaar. yee parce que kenn du ko digal ne xeer xeexala xeeru ngor. waaw parce que amoo fa avantage te mënumaa door tamit ku bu ma perturbé. mën na ma dóor ku nii ku bu gaañ wala ku bu ma dagg mais mënumaa dóor ma daal. donc lenn la mën a def. ma ñëw si suuf te buñ jàppante si kaw mënumaa daan si kaw. si suuf rek la mënoon jaar te foofu laa taxaw di ko xaar. daan nga Kogna 2 fan nga jëm. ci lamb yow yaa ma gën a xam ñi ma war a man fan laa ko daan ñi ma daan ñëpp hmm. ah koo xamante ne buy dugg si stade ay cinq bloc lay jënd te du am benn retour benn retour ticket du ma ko am bi ma dalee bëre ba léegi mosuma amel promoteur cent franc ku ma na taxaw ne amel naa ma hmm. te promoteur boo mos a tëgg soo ma fayee cinq cent mille bu ma ñëwee damay indi un million cinq cent hmm. fan laa war a dem ci làmb xaw ma ko yow yaay war a wax say nattangoo ci làmb ñi nga ñeme njort ni ñi bëgguma bëre sama génération parce que li ma bëri ak samay morom 14 combats lépp ma bëri ak samay morom dafa doy. wax ma ñan nga bëgg a bëreel. grand yi si kaw. ñan ñooy grand yi. ak ñoo fuuy nag booy bu amee ndam ak du fuuy. waxal ñi ma fiy lim nii su ma leen su ma leen limee. nga xool combat yi ma def. nga xam ne war naa mën a bëri ñoom. ay ca waxal naaru may sens. <laughs> waaw parce que Jackson da koo daal ngeen jàppale laaru daal nooy leex la da nga war a jël. non du question doon nooy dafa nekk champion daan ay champion man dama koo bëgg a daan. ko da dama ko ñaan sens. fay na ma may sens. booy na neexul ba neexul mais ndam day day day day day fuyloo mbër quoi. daan koo ñaar déjà ay laara séquence ay Tidiane Faye lox booy. xoolal fee mais Olof Ndiaye da ne. voilà. soo xaree dënd ba. magasin nga siy fekk. <laughs> mbëri daal xam naa Wolof Ndiaye waxam boobu da ko war a delloo fi mu ko jëlee la mbëri yab na ci trop ci loolu. làmb dama si cër. te yéen ñi nekk si làmb xam ngeen ne làmb dama si cër. parce que lépp lu ñuy wut ci mbër suma ma ñëwee dañ koy gis kon dafa am fu ma war a dem ci làmb te fi ma bëgg dem ci làmb il faut que ma daan ñi nga xamante ne naan ñii ay champion lañ pour dem foofu. ñooñu moom xam naa ni bëgguñu la sax vraiment duñ bëre ah buñ ma bañee daal Fay du bëre ak yow Naar Sokaas du bëre ak yow làmbal feneen. Tidiane Fay kan la mujjee bëreel. Tidiane Fay euh, Alioune Seye Junior la mujjee bëreel daan ko jël bu rëy sax. alin Seye Junior damaa gën palmarès. foofu sax. ah ku mu daan ak ñan laa daan ak ñaata combat laa am ak ñaata combat laa am. Alioune Seye junior ndaanaan la ko tëjee ah, Alioune bëgg sax sa wax ji yëpp. non Alioune Seye Alioune ko mais bu ma ko bëggoon damay jaar si turam. bëggoon non maanaam bañu ma ko. mais su ma ko bëggoon direct damay jaar si moom direct Tidiane Faye laa bëgg. non jëmuma si moom. man man man maanaam du ma du ma du ma du ma naataabale samay wax parce que lu ma wax tey rek dama koy waxaat suba. Hmm. noonu laay doxee. ñi wax nii dama bëgg ñu may ma sens. di Diane Faye waaw man na su ma sañoon da wax sa catégorie ci làmb. parce que ñooñu ñooñu non say morom rek combat yi nga xam ne ay combat jànk la combat yi neex na ngeen bëgg a topp mag ñi di leen noggatu ah, grand contre petit ah Tidiane Faye Tidiane Faye bëri feeg ay ñaar ku bëreeg sos ku bëreeg Zos bëreeg Paul Maurice Paul Maurice bëreeg Modou Lo loolu doon nga naan Tidiane Faye waaw ku ku daan ñu bëreeg koo xamante ne dafa bëreeg ñooñu ñëpp bokkoo benn adversaire bu ngeen am adversaire de commun boo xam ne war nga fi wax ni ñëpp dañ ko fi bàyyi dem dañ ko fi bàyyi dem. prouvé na barki waaw prouvé na barki dem wane ne du ay man dama ko fi dama prouvé dama prouvé lu tax mu war maa mën a may sance parce que moom ñi mu bëreeloon noonu si kaw dañ koo mayoon sens mu dem bëre jeex ñoom. làmb mënoo jeexal say morom. sens moom nga droit. waaw damay ñaan sance gañ ma may sance parce que man samay morom li ma ci bëreel daa bëri quatorze combats samay morom laa bëreel. Naar Sokas Tidiane Faye ak kan. Onde ond de ñu bëri ko bëgg bëri na mais ond fi mu toll nii basagam laa laal bëggul kenn. sànq rek woo naa ko am benn mbër buñ ko doon wax mais bëggul kenn moom bëggul. waaw bu ma bëggul garaawul bu bëggul bu ma bëggul garaawul. bu bëggee baax na bu bëggul. parce que du ma du ma du ma forcer kenn xam nga ma doon ma forcer kenn ñi ma fi lim ñëpp su ma doon bëreeg ñoom stade bi li fay am maa koy def. maa koy feesal maay fecc fecc bi bu ma ñëwee maay bëre. Mm. li fay am yëpp maa koy def kon duma ma si forcer kenn ku bëgg a bëre man may ma chance ñu bëre ku bëggul tamit ma dem seeti li nga xamante ne moom moo mën a nekk rek ma def ko. Mm. Mm-hmm. diggante démb démb nga bëri am ndam. diggante démb ak tay promoteur yi déggoon ko. avant may génn stade bi am na promoteur yu ne man ko la woo bul ko wuyu dinañ la woo parce que damaa jëflante ñoom man mën naa ne xanaa mbër bu ma yëgul man rek maa fi nekk mbër boo xamante ne danga fay li ma jox avance may la soxla ma ko teeku. Hmm. reliquat la soxlaaw ma ko teeku. ne la jox ma cinq bologi billet nga jox ma cinq bologi billet ma dem jëli ji li nga xamante ne moom moo des si pour mu mottali li nga xamante ne moom laa jël si ay bi jox la ko. bu bu fi promoteur yi tëgg mu koy defal loolu amul. te defal naa ko promoteur bu ne. est-ce baax na ci sa carrière tamit yaa ngi koy def promoteur bee ngi ci gagné yow lan nga ciy gagné waaw li ma ci li ma ci bëgg a gagné rek mooy dem fenn ci làmb parce que làmb tolloogu ma fu ma si fu mu may mayee xaalis tolloogu fu ma làmb di mayee xaalis su ma si teelee ut xaalis man naa bañ am li ma bëgg ci làmb parce que làmb bëgguma ci xaalis ak tournée rek làmb dafa am lu ma ci bëgg mooy yóbbu ko couleur ngor foo xamante ne mosuñu ko yaakaar si làmb te mën naa ko te yàlla suturaal na ma am naa ay nit ñoo xamante ne ñu ngi may taxaw su ma amee combat soxlaawu ma am avance pour préparer soxlaawu ma ñàkk am pour préparer parce que am naa ay nit ñoo xamante ñi nga gis ni ñu toog su ma amee combat tak ku nekk day génnee dix mille mat nañ cinquante personnes ku ne day génnee dix mille ñu dajale ko jox ma ko est-ce que soxlaati naa pour di jël avance su ma ko jëlul aussi di ma may préparer normal waaw kon lépp lu ma mën a def pour bés yi may bëree réussir rek dama koy def mosoo leen ñëw stade ngeen ne ana xeeru ngor ñi mu andi ngeen ne trois personnes la saa yu may ñëw damay andi mbooloo te mbooloo yu may andi ay moyen moo leen di andi yee kon dafa jot ci làmb ñu jox ma sama gëdd comme niñ ko joxee booy yi ay Ada Fass ay Tapha Mbeur cër biñ leen jox pour lan duñ ma ko jox dañoo mobiliser lu ma mobiliser wul dañ fee daan lu ma daanul daan nañ fi ko xam te ne mënu ma ko daan mais amul mais nañ bàyyi di xàllal ki yoon di bàyyi keefee man soxlaa ma ko ma xàllal yoon sama yoon maa ko xeex ba fii soxlaa ma ko ma xàllal yoon mais nañ nañ ñu jox ñu ñu war a bëreel ñu bëree ñooñu parce dafa jot ñuy bëri ay combat sok yoo xamante ne foo toog si Sénégal di ko dégg làmb dañ si am cër te de jour à jour dañuy xam ne xeeru nga dafa am cër si lamb boy yi balaa ñuy comprendre dama ne damaa mën a bëre ma jeexal leen takk. daa de xam nga xam dinañ jeexam leen jeexal. dinaa leen de booy. damaa màgg. am na solo maa lay jaajëfal bu baax kontaan naa parce que xam naa ni temps bi mayewu ko te sa gaa yaa ngi toog ñu toll nii. gars yi ñëw dañoo bari mbër bi cher na am na ndam démb instant yi doon la instant. même pas sax ñun moom ñun moom duñ yëg succès parce que ay talibé bàyyi lañ te bàyyi ñes li mu def si ñun du dara ay àdduna moo mën a fëqi suñu bët du alal du succès du dara parce que loo fi am ak lu mu kawe kawe ak lu mu neex neex ak lu mu mënta ka toll rek day xëy bés dem waaw lenn rek nga mën a am si àdduna loo xamante ne da nga koy deewaale muy sa ngor te suñu xalifa bi da doon wax ne rek nga mën a am nga yëg ne yow nit nga xaalis mën nga ko am am succès am leneen leneen te doo yëg ne yow doomu aadama nga mais boo amee dignité nga yëg sa bopp fu la nit xam ne da ngaa diñ loolu mooy doomu aadama te ñun loolu la ñuy ñaan yàlla am dignité waaw maanaam lépp lu ñuy def rek ñu di ko def si si si maanaam loo xamante ne kuñ ci fekk duñu xalab waaw succès leneen ak leneen ak leneen garaawul yëfu àdduna la te loo xamante lay jeex aussi waaw parce que carrière làmb gudd na guddul am na suñuy morom yu nekkoon si jamono yi nekk tey bés ñëw na ñu am ndog yàlla moom leen am na suñuy morom yu nekkoon ci làmb tey bés ñëw na ñu am ay tolof tolof bëreetuñu kenn déggatu leen te pourtant toj nañ fi kon mënoo fee am loo xamante ne dina fëq bëtu doomu aadama yi parce que bi nga koy am fii la leen fekk waaw ñun ñun gisuñu dara lu dul lépp yàlla la mais dañuy santaat yàlla mi nga xamante ne moom moo am kattan kattanal ñu mënuñu amuñu yoruñu te duñu mës a am duñ mës a yor duñ mës a xam duñ mës a mën moom rek moo yor lépp moom mu ñu kattanal ba ñu am ndam ñu ngi koy sant mais di gërëm ñi toog ñi sama criminels yi les premiers cadavres ñii aw seen fay dama leen di bàyyi yàlla mi nga xamante ne moo am fay mu fayal ma leen di sant ñi nga xamante ne dañ ma jàppale ku si mel ni Amadou Gueye ati caatu ngor caatu ngor moo nekk noonu ku yóbbu ñaar <laughs> mooy loolu de. Hmm. Ah, di sant ñi nga xam te dañ ma jàppale ku mel ni Amadou Gueye ati xam nga maa ngi koy sant bu baax jàppale na ma gis naa jàppaleem ci man di sant Antou Gueye Samba waaw moom tamit jàppale na ma bu baax gis naa jàppale bi di sant. képp koo xamante ne taxaw nga ma sama papa docteur ñaa borom suma assistance 15 blouson la ma may blouson bu ne la ko defaree. docteur maa ngi lay jaajëfal gis naa ni ngay taxawoo xale wallaahi ba pare ne lay jox si xaalis du ma la ko jox avant combat parce que da nga ba làmb jàll. ba tey recevoir ma nee ma suba laa la recevoir kooku aw ma fayam oto bi ma yóbbu stade démb L200 la ma jox defal ma si gasoil ba mu fees ne ma demal fu la neex xam nga kooku aw ma fayam dama koy baax yàlla mi am fay mu fayal ma ko benn booy bu ñu naan aatu pizza fooy la dëkk tali bu bees. pizza moom pizza rek. loolu kay jar ay pizza bi pizza ay baax la may laal ay hamburger mais dafa def geste bu gën a noobul loolu mooy daf ma woo ma ñëw mu may ma xaar te sama moroom la. fast food bu daw la yor mu ne ma bi nga commencé jënd ci man ba léegi bàyyi woo lii maa ko def si combat bi ma ubbee xaalis bi gis li ma jox wallahi sama yaram dafa parce am na ñu ko supérieur mag ko ëpp koy moyen te defaluñu ma loolu waaw geste nag ndaw. waaw loolu waaw waaw xeebu ma loolu naa ci loolu bu baax waaw di gërëm sama gaa yëpp di gërëm grand yi may jàppale ku si mel ni Babou Gueye Damaay ama in xaali in Bamar in Tidiane Demba Vieux ama Baye Maguette Ndoon Mamsal ama ay Bouba gaa yëpp maa ngi di gërëm suma criminel yi Bàcca Ambaay Jibi Diop Maam Juma Mbacke ama Xadim Ndiaye ñëpp ay Lamine ku lim juum xam nga maa leen di sant di leen gërëm di wax ne aw ma seen fay waaw fiñ ma téye xam naa ko te yëg naa ko aussi di di la sant yow tamit li tax ma lay sant mooy que làmbaa ñu boole moo tax ñu xamante léegi maa ngi ko doon waxtaan ak maas téléphone ma ne ka yow ba yow wax yow wax euh, jiili wallaay tollu ngeen ci man foo xamante ne làmbaa ñu boole mais dépassé nañ làmb parce que même bu dul dara dañuy déggante di nemmeeku wante te loolu rek dafa am solo si doomu aadama waaw làmbaa ñu boole mais dañoo dépassé làmb di leen ñaanal jàmm. billaay walaay di la ñaanal jàmm bu wér a wér a wér a na yàlla yokk dëgëral taxawaay bi yal na la yàlla sàmm yàlla aar la lépp looy ragal yal na boo ko gis barke Cheikhou Tidiane waaw. di leen ñaanal yéen waa wasaare yal na leen yàlla yokk dëgëral. yéen mu njëkk jël sa télé fii sama kër. ñëw ba fii seet. waaw loolu du ma ko mos a fàtte. bari nga ci morom. te man dama doon nit boo xamante ne. du tey moo tax may wax démb moo tax may wax waaw parce que ëllëg day am te pour ëllëg am foog tey dem waaw kon dañuy remplaçante nañ fàttale ko bu ne waaw maay kontaan bu wér a di leen bëggee. maa ngi koy jaajëfal bu baax moom Xeeru Ngor numéro 2 ndaanaan la boo xamante ne vraiment wane na démb ni ci làmb bokk na ci wane na démb ci këni ay moromam du du du du du xale bi nga xamante ne mooy Kogna numéro de Kogna dañ lay encouragé lamb noonu la ñaari ndamay dugg waaye benn ay génn démb moom ala kuliyaani loo mënoon def xeeru ngor mooy am ndam gën a defaruwaat ànd ak say mbokk àndaat say soppe àndaat ak say njagañaale dellu siwaat ci làmb mun ngaa am lu ne ci làmb ñu koy jaajëfal bu baax xeeru ngor nag laaj na ay mbër bu laajee naaru sokaas naaru loolu nag yaa ma ko gën a xam bu laajee Tidiane fay Tidiane yaa ma ko gën a xam bu laajee Onde le vraiment Onde war ngaa mën a bëre parce que dimanche bu jot bëre woo rek pertement mu ngi bëgg am ni ko suñu père Max Mbargane di waxee. depuis bi nga daanee euh, ca euh, xale bi di Ada Fass ba tey Ada Fass bëri na deux combats ci sa ci sa kaw. bëri na moog Tapha Mbeur mu ngi waaj a bëriwaat te bu bëriwaatee sa kaw ñaari combat ñetteelu combat yi di ñëw vraiment yaa ngi perte. xale yi lay laaj nga war a mën a bëre ñoo ak fi nga teg sa bët bëre la xale yi. wanewaat sa bopp ci làmb gën a góorgóorluwaat mbokk yi ñu leen di jaajëfal bu baax di leen jox dig daje di leen wax ni ataay moom. caatu ngor moo fa jaar. caatu ngor moo fi jaar mu nekk caayin bu neex. rek caay bu am solo ba ëllëg incha allah lay jaajëfal bu baax caatu neex na.